mbokk yeeg xarit yi asalaamaaleykum ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci sangu-sangu yi Seydouna Mouhamed euh, ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax a baax tey nag euh, sunu plateau spécial euh, ñoo ngi fii ci Kaolack Ndangaan bu ñu ne Kaolack Ndangaan li ko waral mooy vingt et unième édition drapeau chef de l'État tey fii ñoo ngi fii ci résidence Hilton mbokk yi fekk fi nga xam ni fi la kuréelu arbitre yi nekk muy seen quartier général donc mbokki téléspectateur u Sen 24 TV partout dans le monde mbokki téléspectateur u RTTT la télévision des artisans ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax a baax à ma droite euh, le géant garçon de Thia laa koy tuddee di ndaanaan li visage am rek kanamam rek buñ ko gisee suñu xel day dem ci lamb muy Sitor à ma gauche nga xam ni moo di euh, drame moom it ñoo ngi koy ziare bu baax a baax a baax euh, suñu waxtaan dañ koy tëral ci préparation daanaka sax dootuma wax préparation drapeau chef de l'État ndax ay simili moo tee ñu dem ci stade Lamine Gueye euh, daal di dawal li nga xam ni moo di premier jour bi Sitor maa ngi laa nuyu bu baax a baax. maa ngi leen maa ngi lay fay. di nuyu téléspectateur Euh, seen kii seen ñaari tele yi voilà. démb ñu amal li nga xam ni moo di pesage yi euh, ba lépp yemb na démb. waaw euh, pesage bi nag avant ñu yegg si si loolu déjà niñ ko defee rek dafa ñëpp dañ ci kontaan. Mm-hmm. parce que boo xoolee bu njëkk dañ doon def peser le matin ngoon gi. ñu dem euh, ñu dem euh, soo compétition mais ren initiative bi loolu la loolu mooy li neex ñëpp maanaam dañoo def peser tey léegi mbër yi war a bëre si suba si euh, mu permettre leen ñu mun a noppalu ñi nga xam ne dañ doon sóoraale seen poids mhm. ñu toog noppalu mun a lekk avant ñuy dem combat parce que boo xoolee li doon am avant mbër yi dañuy jóge peser sonn ba bëgg a dee ñëw acca compétir du euh, ñu yore seen doole bi yëpp te loolu dafa nekkoon loo xam dafa leen di wàññi moo nekk initiative boo xam ne ñëpp dañu cee kontaan vraiment muy arbitré ñëpp ñun sax daf ñu permettre dañuy jóge peser noppalu suba ñu mën a ñëw euh, arbitrer. vraiment initiative boobu ñu ciy remercier CNG bu baax. parce que ñëpp kontaan nañ ci. voilà merci. boo tuddee CNG euh, nga jiite li nga xam ne moo di kuréelu arbitre CCA. Euh, ginnaaw ba nga jugee ci euh, suspension boo xam bëgguñu ci dikkaat sax quoi euh, <laughs> radiation yaa ko wax lan lan la lay def. waaw sant yàlla rek. di xam ne ñun ñëpp ci même dëkk bi lañ nekk. moom lañ bokk. sport bi nag mu nekk lu ñu bëgg yàgg ci bëgg mu dox. léegi nag ñu tourner une page parce que effectivement bu ñu waxee CNG ñi fi nekkoon ak ñi fi nekk ba léegi CNG la tudd ñu ŋànk làmb ji. même bu ay nit demee ay nit ñëw ñun dañuy jàpp ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ te li ñu gënal mooy sunu discipline bi avancé donc euh, buñ demoon ñu raje la ñu fexe ba à travers le ministre ak le euh, le président du CNG Euh, lépp delluwaat place am ñëpp juboo nekk benn pour rek discipline bi avancer la mais du leneen donc euh, ñu ngi ciy gërëm ñi ci jàpp ñëpp ak sénégalais yi nga xam ne vraiment bëggoon nañ loolu yëpp réglé euh, te incha allah yàlla def na ko kon ñu def lu dul sant yàlla. ñu dellu si waat fii ci Kaolack ci drapeau chef de l'état bi ndax mooy actualité bi ndax région yëpp répondre nañu à l'appel. waaw 14 régions yëpp ñëw nañ ñëw nañ à temps Tamba moo xawoon am tuuti retard. te dañ yegg si ba fii am ay problème ci biir euh, Kaolack bi loolu moo taxoon mais ñëpp ñu yegg si nañ à temps euh, toutes les régions ont répondu maanaam région yëpp daal ñëw nañ waaw sant yàlla euh, ñoom ñëpp matal nañ wala mataluñu motal mooy ñoom ñëpp motal nañ équipe mm-hmm. waaw motal équipe rek mooy à partir de ñetti lutteurs parce que cinq lañ la wax boo amee ñetti mbër rek maanaam mot na équipe léegi am nañ quatre poules parce que fu nekk am nañ fa kii daal ñëpp daal ñëw nañ région yëpp ñëw nañ te mot nañ équipe voilà donc ñu def ko euh, quatre poules. mais surtout dañuy ñëw ci arbitrage du ma ñëw sax ci euh, lutte avec frappe parce que actualité bi drapeau chef de l'État la mais quelle est la différence entre euh, arbitrer lutte simple ak drapeau chef de l'État yaakaar naa règlement yi bokkul. voilà les euh, c'est déjà bëre bi ñuy arbitrer nii du lutte simple kese lutte africaine la léegi ñun dafa am lu ñuy wax bëre simple. Euh, bi am si ñun Sénégal fii mooy boo xam ne da ngeen di bëree mais da ngay jàpp ngemb léegi bu dee lutte africaine nag amul jàpp ngemb te temps bi moo gën a tuuti parce que lutte africaine lañuy ñuy appliqué fii mooy bëre bi nga xam ne dañ ko codifié en Afrique pour ñëpp mun a bokk même règlement bi fii ci Afrique euh, ñu mun a bokk benn bëre te bëre boobu léegi dafa romb Afrique léegi dem na ba niveau mondial. léegi am na au niveau mondial am na benn instance boo xam ne mooy gérer la lutte africaine ça dire que euh, sunu forme bëre boobu def na ay jéego yu rëy. d'ailleurs sax le président Alioune Sarr moom moo yore euh, niveau mondial moom moo yore làmb ji fu la lutte africaine léegi nag boo ñëwee ci lutte traditionnelle simple bi ñuy wax fii si ñun boobu dañuy jàpp ngeem te temps bi cinq minutes la. bi bi bi temps bi ñaata la. bi temps bi trois minutes deux fois la trois minutes trois minutes fële nag deux fois cinq la loolu mooy def différence amul jàpp ngeem am na yeneen situation yi ci am comme par exemple ci bëre bii nii lutte africaine amoo droit teg sa ñaari genoux ci suuf di bëre. maanaam boo ci daanee nit fekk sa ñaari jeune mu ngi ci suuf ngay attaqué euh, boobu mënatuñu wax ne euh, jël la am na daal waaw léegi loolu dañ koy tere waaw. mais damay faral di gis euh, seen arbitre quoi nit ki day bëri sax ñu ni ko manque de passivité. lan la pour bëgg affaire bi gaaw la wala pour bëgg mu bëre parce que des fois dañuy gis lutteur bi di bëre def action ngeen def ni ni ko manque de passivité loolu pour lan la. waaw manque de combativité la. passivité mooy nga nga ñàkk bëre. waaw ñàkk bëre nag bëri na ay yoon. maanaam nit ki lu lu muy def ba tëj bëre bi wala lu muy def ba bañ a bëre rek ñun loolu la ñuy jàppee ne mooy passivité passivité mooy ki nga xam ne day tëj bëre bi parce que sport dafa am lu mu laaj bu ñu nee de combat dafa laaj contact. bu dee bëre door la par exemple dañu dañ leen ne dafay am percussion wala mu am appréhension maanaam dangeen di jàppante wala ngeen di dóor ñaar yooyu bu amul rek dañuy jàpp ne da nga passif terewul tamit bu dee bëre simple bi nit koo xam ne dafay bloqué combat maanaam mu fexe ba nga xam ne nit du ko song te yow doo song kooku dafa passif ki nga xam ne day daw day daw contact bëggul ngeen jàppante kooku tam dafa passif. ndengeñ nag. waaw ndengeñ il faut nit ñi comprendre ko ndengeñ liñ ciy bañ waxuñu ne ndengeñ amul mais maanaam nga ndengeeñ taxaw moom mooy danga nga tëj bëre bi parce que déjà ku war a bëre nga jël jiital sa bopp mooy wane ne du ma ñëw te yow doo ñëw. pourtant da ngeen koy nangu ci bëre dóor bi. waaw moom laa lay wax nii bëre dóor xam la moo tax bëre dóor ñaar la wax naa ko léegi nee na dafa am appréhension ak percussion soit ngay dóor nit kiy door même bu ndengeeñee mu ngi bëre parce que bëre door la ñu wax kii ndengeeñ aussi di puus wala muy xëcc mu ngi bëre léegi li ñuy bañ mooy kii bloqué ñaari loxo maanaam nga tëj combat yëpp taxaw ndengeeñ kooku moom deful dara boo ko defee arbitre day ñëw jege la nee la bëreel parce que xam na ne yow yaa tëj bëre bi da nga gis koo xam day bloqué ñaari poids yu ñeewu ki muy bëreel boole ci teg ndengeeñ ndengeeñ moom mooy doo dem du ma ñëw léegi nag boo ko defee dañ la koy wax mais musuñ musuñu tëb rek avertir la bu ñu la ko waxee da ngay xam ne nekkoo ci luy ubbi bëre bi te bu tëjee bëre bi du neexati parce que spectacle pour mu am il faut mu am lu ubbeeku soit nga song wala kenn song parce que bëre simple amul dóor xam nga bële sax da ngay ragal yenn saa yi nga song ñu dóor la mais bii amul dóor war nga mun a def loo xam ne dangay dem songi ji waa ji wala nga bàyyi moom mu song nga def leneen mais li ñuy bañ rek mooy taxaw rek bañ a def dara wala nga bloqué poignée jàmbur arbitre bu la ko waxee rek xoolu ci leneen lu dul combat bi neex ouverture am ay technicité am ñu gis ay ñu gis ay jël yu spectaculaire parce que loolu lañ bëgg mais kuy tëj moom arbitre dina ñëw wax la li ci topp mooy avertissement voilà. Euh, ban moo la ci gën a neex. drapeau chef de l'état wala lutte simple ban ci gën a metti ban moo la ci gën a neex. bon yëpp neex nañ ma nag. seulement. mais am na ci boo xam am nga ci difficulté. difficulté maanaam. maanaam euh, da ngay yàkkamti bëri bi jeex ndax da nga ciy sonn. waaw boo xoolee euh, bëre dóor xam nga moo gën a gudd temps te li ngay wax noonu euh, souvent nit ñi duñ ko comprendre. si bëre dóor ngay gis nit ñi di léewatoo léewatoo bu dul jeex. léegi nit ñi naan ah way euh, nan lañ koy woowati sax dañuy naan round d'observation alors que round d'observation amul fenn xam nga mooy lan round d'observation maanaam bu kenn ki di bëre keneen ki bërewul round d'observation moom. mais mais nag Sitor maag yow bu ñuy bëri xaw ma la xaw ma la il ma taxaw jàng la il faut nga taxaw jàng ma. non waxuma loolu de loolu waxuma ne amul de dama ne li ñuy bañ xam nga mooy lan kenn ki di bëre. keneen ki bëriwul ba pare ñu naan round d'observation mënul nekk foofu. round d'observation mooy ngeen commencé. ku nekk di xool lan la war a def. te temps bu ndaw la. su amee rek da ngay gis arbitre bi jege nee leen ah sama waay contact maanaam il faut ngeen jegante maanaam il faut contact am. su contact amee defu leen dara aussi après da leen di wax action maanaam il faut ngeen def action léegi bu action amul nag mu waxaat ak yéen après bu leen woowaatee day avertir waaw loolu il faut nit ñi di ko xamee noonu dafa am ay étape passivité nit musul ñëw rek arbitre du ñëw rek ne la am mhm. non da lay wax ba pare ne la yow bëree wala yéen ñaar bëree leen su ngeen bëreewul bu ngeen sorantee mu ne leen contact bu contact bi amee pare mu ne leen action bu action amul mu ñëw arrêter avertir voilà. en parlant de euh, ci football sa waa ji Vincent Lass mii moo dàqoon na ndengeñ ndengeñu football caméraman dama bëgg nga jëlal ma Vincent Lass dama bëgg nga jëlal ma Vincent Lass moom dalaa jël bal bi euh, téye bal bi wan la ginnaaw gi léeg-léeg mu conc la puus ndenge ndengeñu football puus. ba gis ouverture soit mu dóor mu dugg wala mu paas loo loo loolu mënoon na ko ci bu baax a baax a baax. ah, <laughs> ah waaw mu ngi noonu rek en daal lépp loo xam ne dafa war a ubbi spectacle bi. ubbi kombaa bi nit ñi kontaan nit ñi lii leen fi indi ñu gis ko mais bu ko nekk tëjee. amatul bëre taxul ñuy wax bëre parce que ni nga ko waxee bëre euh, liñ ci laaj mooy contact bëre liñ ci laaj mooy action léegi ñaar yooyu bu amul arbitre dina ñëw bu dee ñoom ñaare ko def mu wax leen ko bu dee kenn moo ko def mu wax leen ne yow bëre woo yaa ngi tëj bëre bi voilà. mais Sitor après radiation bi comme ni nga ko waxee y' a un nouveau bureau CCA bi tamit am na beneen bureau bu bees lan moo waral coppiku boobu. waaw coppite bi ay ay nit a dem ay nit ñëw mais terewul institution ba léegi mu comme ni ñuy wax rek les hommes partent les institutions demeurent euh, ku munta dem aussi danga nga bàyyi ñeneen parce que ñu fi jógee aussi am na ñu fi fekkoon euh, mais terewul continuité moo am dans le travail continuité bi may wax mooy liñ doon def ñu ngi ci sinon yokk rek yokk yokk yokk affaire bi ku nekk euh, jéem a fexe ba ñu muñal CNG bu bees bi ñu comprendre ne ñu ngi doog a ñëw mais pas ñu exiger à ce que mu def lu gën a extraordinaire ci na si benn laps de temps bu gàtt donc jàppale leen wane ne affaire bi ñoo ko bokk ku nekk jàpp ci nag waaw loolu daal lu ci am solo euh, ñu gis Babacar mi nga xam ni moo yoroon euh, lutte avec frappe ñu yóbbu ko ci lutte sans frappe wala ba tey réglement ba nekkoon fee day changé wala lu mu maîtriser lañ ko jox. waaw euh, dara changé wu ci règlement yi ñu ngi fi ba léegi ay nit a changé waaw dañ ciy profiter rek di di rappeler ki ñu ñàkkoon daaw te mu yoroon bëre dóor bi muy ñoxor Diouf waaw vraiment di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana te. njabootam yàlla teg seen euh, teg si loxoom euh, moom bi mu demee euh, si lañ jël Babacar mi nekkoon lutte sans frappe ñu yóbbu ko foofu Malick bi nekkoon adjoint si lut sans frappe mooy gérer léegi la lutte traditionnelle sans frappe voilà mais règlement bi dara changé nit ñi ñoo te ñu ngi koy doxal ni mu waree te ñoom yàgg nañ ci te xam nañ nan lay doxee daal. yaa ngi ñaanal tamit ki nga xam ni moo di ñoxor ñu gis ni à deux jours trois jours euh, euh, drapeau chef de l'État yaayu Bira Sène euh, wéyjuru Bira Sène génn àdduna ñu koy ñaanal tamit yàlla xare ko àjjana. effectivement loolu wax nañ ci sànq sax avant ngeen di ñëw ñu ngi jaale président di ko jaale waa Kaolack di ko jaale le monde de la lutte parce que nekk na lu métti. à quelques jours euh, de l'événement ci dëkkam boole ci mu ñàkk yaayam waajuram bu bu jigéen euh, ñu ngi koy jaale di ko jaale Kaolack yëpp di ko jaale le monde sportif vraiment euh, lu métti la mais yàlla na ko yàlla xare àjjana te saraxam yàgg seen loxo daal. si toor fi ngeen nekk ba yemb na. waaw ñu ngi sant yàlla parce que affaire yi dafa xaw a dëgër quoi dañoo ñëw ba fii le président de la république dafa war a jaar côté yi boo xoolee moo tax hébergement bi. xaw a am problème parce que lépp pare woon na mhm. mais dafa am hôtel yoo xam ne dañ ko réquisitionné mhm. pour euh, l'arrivée du président de la république mhm. léegi moo xaw a perturbé waat léegi na ko nit ñi comprendre noonu mais ku nekk boo comprendre li tax parce que lépp pare woon na mais yooyu moo indi ay changement tuuti ba ñu am ay quelques difficultés mais ñu ngi sant yàlla daal yan kàddu ngay tàggatoo waaw di di di di ñaan gars yi rek ñu jàpp ci comme ni ma ko waxee sànq ñu nangu muñ euh, ñun ñëpp Euh, ay nit kese lañ ku nekk boo sañoon lépp day parfait mais le parfait moom foog naa yàlla rek la mm-hmm. euh, kon nag dañuy jéem rek mm-hmm. jege lu parfait mais lu ci am daal nañ xam ne ñun li ñu bëgg mooy lépp dox waaw ñuy ñaan daal ni ñi am ci compréhension ku xamul nag boo ñëwee ñu expliquer la mm-hmm. ñun daal li ñu bëgg daal mooy leer si bëtu ñëpp voilà merci beaucoup di leen ñaanal rek euh, li ngeen xam ni ñoo ngi koy door ci kanam tuuti ngeen dugg ci si bisimilahi rahmaani rahim yàlla may la leen kattanal ba du ngeen ci am benn faqatal ñu jeggale ko alhamdulilahi rabil alamin mbokki téléspectateur u euh, RTT partout euh, la rajo la télé des artisans ak li nga xam ne rek moo di Sen 24 TV partout dans le monde li mo nekkoon seen entretien ak li nga xam ne moo di Sitor di président CCA jërë ngeen jëf. salaamaaleykum mbokki téléspectateur RTT TV. tey ñoo ngi fii ci. Kaolack Ndangaan ah di leen toppal fii li nga xamante ni mooy sunu yitte di suñu ah, soxla muy làmb tey nag ah dañoo ñëw fii ci benn hôtel bu Ahmed xalifa Niass a ah, seet si fi ko nga xamante ni kenn mënul tudd làmb te tuddoo ko muy Soukra ah Kra nag bu buñ ko waxee ñun dafa am ko nga xamante ni tey moom lañ fi fekk muy Aboubacry Dramé di président Soukra bu Thiès ñu ñëw fekk ko fii nga xamante ci seen otel bi ñu ne ñu war ko dalal war a waxtaan ak moom ci làmb li nga xamante ni mooy actualité bi ñu indi fii ci Kaolack ñu war a waxtaan ak moom ci drapeau chef de loolu moo ñu fi indi kon Aboubacry Dramé boo nuyoo ba pare ñu waxtaan ak askan wi. bon asalaamaaleykum euh, Pape maa lay nuyu euh, di nuyu sa caméraman yi nga àndal ak technicien yi nga àndal euh, xëy na di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax moom mi ñu may ñu fekkewaat ay éditions yu bëri bari bari bari may ñu ñu fekkee bii di ñaan yàlla mu may ñu fekkee yeneen euh, maa ngi nuyu aussi euh, seen téléspectateur RTT TV yëpp euh, de ci di jégul nag vraiment li ma war a njëkkee mooy di jaale suñu président Bira yaay mi nga xam ne moo wàññeeku barki Demba Ndiaye rek ñu ngi ko ñaanal yàlla yeesal yërmandam ci moom yàlla xare ko àjjana njaboot gi fi bàyyi yàlla teg ci loxo. jërëjëf euh, Aboubacrine ah tey ñi ñëw fii ci Kaolack ci 21e édition drapeau chef de l'État ah ñu fàttaliku ni 2019 Thiès moo ko joon jël tey Kaolack di ko organiser ak euh, nouvel président wu CNG de lutte bu Thiès bu Sénégal di Bira ñi ñëw fii organisation bi nan ngeen ko gisee yéen ñi nga xamante ni yéenay waa CRAC. Eh, waaw euh, Pape organisation bi. Euh, xëy na dafay teel trop nga ne organisation bi jaar na yoon parce que loolu ci bilan bi lay bokk boo paree ci mais jàpp nañ ne war na mën a jaar yoon ndax defe naa ne jël nañu matukaay yëpp ñun bokk yi nga xam ne jot nañ ko fekkee euh, lu mel ni sax mosul am du ma ne gëj na am mais musul am mooy arbitre dañuy teel a dem pesée bi ñu teel ko def ndax d'habitude dañ naan ñëw ci même benn jour bi def pesée bi ci suba gi ngoon gi nit ñu dem def compétition arbitre dañuy son dirigeants yi dañuy sonn mbër yi dañuy sonn mais cette fois si def nañ ko ba le lendemain la ñu war a commencé euh, compétition yi kon loolu vraiment innovation la loolu rek euh, tax na ñu yaakaar ni dinañ am organisation bu jaar yoon vraiment am nañu yaakaar am nañ ci yaakaar daal bu baax a baax dem nañu aussi ci enceinte ba xool nañ vraiment lépp daal euh, tegu na ci yoon daal tegoogu na ci yoon ñaan yàlla mu mu sax ba kenn compétition bi jeex. dëgg la kon mu mel ni euh, waxagu ndax organisation bi lépp jaar na yoon teel na mais maanaam euh, pour maanaam lan ngeen gis ci départ bi comme ni nga ko waxee rek seen xel dal na ci li nga xamante ni moom la ñu gis. mais maanaam euh, wàllu pesage bi tamit dañ daan gis ah wax dëgg yàlla ñu ñu ko doon def ci même jour bi tey ngeen dekkale ko décalage boobu ah, wax dëgg yàlla gis nañ ni tamit ah, wax dëgg yàlla am na lu mu yokk kon saa yu ngeen demee rek drapeau chef de am na lu ñu fa jànge ngir bu déwénee ngeen xool li nga xam ne ay manquement la woon ah soo lëggee su ngeen ñëwee yokk ko ah ci wàllu arbitrage tamit dégg nañu wax dëgg yàlla ni ngeen xamante ne moom la arbitre organisé woo jafe-jafe yi nga xamee amoon ngeen ko defe naa ni yooyu yëpp ngeen ko ba fi ñu toll nii defe naa ni loolu lépp jeex na. dëgg la dëgg waaw loolu moom bëgguñ sax ji ci dellusiwaat parce que euh, sport euh, amul amul jàppante quoi amul amul amul amul euh, xëy na ñàkk jubóo ñàkk jubóo bi ñàkk bokk gis-gis rek mais sport am amul xuloo daal te je pense que bëgguma sax delluwaat ci loolu. parce que vraiment bi loolu amee aussi coow loolu am muy benn ay principe yoo xam ne arbitre dañ ko défendre ñi ci war a dox dox nañ ci mooy le ministre des sports ak le président Bira bi nga xam ne aussi euh, vraiment dañ ko gërëmaat gërëm bi du du du am app dañ koy gërëm du day du doy donc vraiment dox nañ ci ay jéego ba tey jii nii nii nii apaisement am na ñu ñëpp waa juboot nañu joxantuwaat loxo liggéey parce que lamb la rek waaw ñun ñëpp lamb lañ bëgg waaw loolu quoi vraiment sant yàlla ci loolu sant yàlla bu baax a baax a baax. jërëjëf euh, Aboubacar Dramé ah mu mel ni waa RTT TV dañu fi jaaroon rek ah ngir jël fii ay information parce que defe naa ne kenn mënut a tudd làmb soo tuddee mbër te tuddoo arbitre defe naa ne sa làmb du complet loolu moo doonoon suñuy tànk fii tey ah li ci des nag xam naa ne faaw ñu dem ba egg ci stade ba doo ko mën a eggale programme bi. d'accord beneen euh, beneen innovation bi. Euh, ma wax la ko. lu weesu pause bi nga xam ne dañ ko doon def. jour compétition yi. ren ñu décollé ko avant jour ba loolu innovation la mais ci biir pesée bi bu leen fàtte ni mbër yi dañ daan ñëw bu ñëwee ba fi ñuy war a bëre ngay xool ndax dagg nañ seen wee wala dagg ñu seen wee mais bii yoon ca pesée ba lañ ko defee bu ko defee ci pesée ba lañ ko defee donc boo ñëwee boo pesée ba pare dañ la xool boo qualifié ba pare dañ la xool ndax weey war nañ ko dagg wala ñu ko dagg une fois ñu dagg foofu jeex na parce jàpp nañu wee xëy na mënut a euh, gudd ci diggante ñetti fan wala ñaari fan loolu aussi vraiment ren arbitre xaar nañ loolu innovation daal vraiment waaw. Ah, kon mu mel ni ah, mbokki téléspectateurs yi ah, lii lañ leen jël see woon fii nga xamante ni ci fi la arbitre yi ne ci li nga xamante ni moo aju ci vingt et unième drapeau chef de l'État bi nga xamante ni moom la ñu organisé fii ci lax kon ñu jox leen rendez-vous rek tout à l'heure ci kanam. waaw maa ngi la fay. président yaa waaw eh, ñu ngi gërëm yàlla waaw di ne vingt et unième édition bi maa ngi ñaan ñu commencé ci jàmm ñu jël ci jàmm waaw eh, comme d'habitude rek ñun moom arbitre yi ñun réglement la ñuy doxal te moo ñu andi fii quoi waaw pour atte rek waaw léegi nag ku sa chance waaw dëgg dëgg ñi nga ñaan nag li may ñaan daal mooy nañu daal mu jeex ak jàmm quoi waaw donc ñi ngi gërëm nag waa Kaolack waa ñu accueillir waaw c'était pas facile nag waaw comme lu ñuy wax rek euh, comme président daf fi jaar waaw hébergement yi moom euh, ñu ñu ñu jël ko waaw mais yàlla baax na waaw fi ñu nekk nii moom Hilton waaw ñu ngi sant yàlla bu baax baax a baax nag waaw lutte olympique waaw ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi ciy waaw ñu ngi ciy góorgóorlu xam naa seen ak CNG bu bees bi waaw je crois que ñoom comme ni ñu koy waxee ñoom bëgg nañu def ay jéego quoi waaw bëgg nañu def ay jéego mais pour loolu il faut ñëpp jàpp ci il faut ñëpp jàpp ci quoi parce que yombul lutte olympique yombul waaw yombul ça demande euh, surtout euh, beaucoup de matériel waaw surtout loolu waaw ak ak les hommes quoi oui pardon 26 Las Demba Ndione dëkk <laughs> waaw maa ngi leen di sëñ bi waaw Kaolack mu ngi nii de di neex rek waaw euh, kontaan si CNG rek d'abord di sant yàlla di sant aussi vraiment suñuy wajur di sant aussi vraiment CNG di sant aussi la CESIA bi nga xam aussi vraiment daa renouveler confiance am si ñun parce que arbitre nationaux yi bëri nañu mais ils n'ont plus que 15 kon dañuy sant yàlla rek bu baax a baax. Mhm. ah waaw ça se passe très bien franchement parler aucune difficulté Uh-huh. yéen a waaw ñu ngi waajal vraiment. parce que bi ñu ñëwee ba léegi tooguñu noppalu quoi parce que ñoo nañ depuis mercredi ba léegi. Mm. ñu ngi def ay centre de recyclage. pour vraiment harmoniser ñëpp nekk vraiment même pied d'égalité daal su ñuy dem. aussi vraiment di sant vraiment suñu responsable yi. commencé par Sitor Ndour Babacar Diop et Malick Ngom. et tous les présidents vraiment de Kara. en tout cas dégg naa vraiment vidéo boo fixe daal. Timac Senghor arbitre national. merci beaucoup.